non fii moom jaamu yàlla lañu ko def yàlla yàlla nangu ñaan. allahumma amiin ñaanal naa ñëpp. waaw seen beeru ma dootuma nekkal ci li nga nekk rek. ñu nekk fi ñu nekk nii dootuma tontu kon ñu def noonu. te naanal naa ñëpp. sa bu dee numéro bi ma jox daal dinaa la yónnee baax na dinaa la yónnee. photo yi whatsapp bi yónnee ma photo yi sama xol sedd na nag. incha man la sama xol sedd na ba ma la gisee. lii yàlla rek ko man yàlla rek ndax dama daan dégg ngay tontu dañu wax la wax yoo xam ne nii man mii di wax yow Italie laa nekk. xam nga boo da dem Caritas di ñaan dimbal ñu yebal la sama kër boo dem sénégalais. waaye li may dégg ci àddina. loolu dëgg la. kenn mënu koo xam waaye Cheikh Sidil Mokhtar mooy sama sëriñ moo ma nampatal ci yoon murit dama koo nettali benn bés mu ne ma Abdoulahi su ma a ñëw ci seen dëkk bee ñuy wax ci man dama koy def yomal xiyaam lépp luñ la wax fii donte yaa ko def te dañ ko wax sa ginnaaw danañ la ko fay dañuy jël ci seen i tiyaaba la wala ñu jël say bàkkaar jox leen bul tontooti kenn bul tontooti kenn ndax boo tontooti da ngay mel ni da ngaa bëgg da ngaa weddi fayug yàlla bëgg a fayul sa bopp bul defante waaw jeex na waaw kan nga sant ma sant sàll ci diggante nit ak gàmmu maa la koy ñaan bul tontoo ci kenn. barkeb na ba ñu waaw xoolal fii xoolal fii tontu kenn. jeex na ci barke barab bi jeex na tàkk. jeex na tàkk sant na nga gërëm nañ la yàlla na yàlla def jàmm jërëjëf kan jërëjëf kan